jaajëfal alxaaji suñ mbàkk si li mu nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix suuturaak ci ranga ak poche def dara tabaarakallaahu démb bi ñëkk di jataay bi moo ngi tolloon ci euh, jataay bi di séminaire beeg réunion bi ko jiitu tollu ci nag euh, tànn toll ci tànn yi ñuy bëgg a def ki ko mën a ñi ko mën a def bu ñu noppee ci tànn ñañ tànn ñu defal leen i formation ak stage loolu ci lañuy bëgg a jublu incha allah fàttali ne Serigne Mbàkke ngi ci jataay bi <laughs> eh, tànn ci moo dem bu ñu tëralul principe bu tànn ci li ñuy def lu daañ defloo nit lu munta def nit dana volontaire bëgg def lu munta def rawatina bu fekkee def deflu yi dañ ca gàllum koom mbaa xaalis ak daraja buñ ca gàlleem koom mbaa xaalis ak daraja léeg-léeg nit jéem lu mënut te Haj Malik Maodo Faye nee na kuy def lu mënut ñey seetaane njëkk a sonn mbokk soppi pénc mi soppi pénc mi du la yomb te yàlla nee na bu ngeen ko soppi duma soppi li ngeen nekke inna allah la yugayiru ma bi xawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim soppi pénc mi ndax al insaniyatu jëriñoo ko nite humanité dul yomb ndax jële fi ceddo moo yombut ndax ceddo cim pénc moo dul seet yàlla nee na wala ba neena na day def rekk te def li mu def def yi muy def nag mooy mu jàgg mu dugal pénc mi ci giraawaali bam te duggee moom ba noppi moo tax coppat googoog soppi pinc mi ñoo ñu tuddee zawul ahliya mooy dafa am ñu ko man waaye man giñ ko man it luy caag dañuy xëy rek def ko dañ leen di waajal waajaay woo xam ne dina mën a tax ñu mën koo def waaye ñu tànn leen ci démocratie ñoom ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a sant soppi pénc mi aw góor aku jigéen te bañ a benn am benn couleur politique couleur parti wala couleuru euh, pénc wala couleuru association association ñëpp rek xam ne soppat gi ñun la war waaye mbokk yi tànn tànn boo demee ca démb sallallahu alayhi wa annabiyul Mustafa Euh, yàlla daf ko yónni mu jàngal waa adduna moo tax tànn du lu bees du lu ñu sosit du bidaa tànn bépp muhimma bu ñu bëgg a def dañuy tànn ne diw yaa ko mën a def ndax compétence yeeg euh, yu ni demee expérience yooyu yombut déedéet yombut loolu ne dafa am loo xam ne buñ ca tànnee ko ko man mu man ko suñu penc mi boo demee ci wàllu sport dafay am ku ñu tànn mu man ko nga dem ci wàllu politique noonu communication noonu jàngale noonu tabarkàll ilaaxiri ilaaxiri boo fi doon toggulub ceeb togguloo ko nogi sàllaaw sa ndugg mi yépp dana yàqu ci doo lekk ceeb bu neex waaw <laughs> maa la ko wax ba tax kon dañuy tànn tànn googu nag sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon nanu ko ci benn hadis ci bam fi nekk bàyyee nu hadis bi nag dem nu war di ko jariñoo ba baa nu koy fekki yàlla na yéex waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam ngoog tànn googu daf nañu waaw daf ñu ne woon masalu ma baasani allah bihi min alhuda wal ilmi ka masali alqaysi alkathir asaaba ardan fa kaana minha nee na daf ñuy jàngal ñaar yi ko yàlla jox ngir mu nu ko alhuda wal ilm ne na ñaar yooyu ko yàlla jox ngir mu nu ko lañu bëgg léebal léeb boo xam ne bu ko léebalee soxna Aana Njaay dana xam ne léebu yonent bi bokkut ak nun suñuy léeb ndax nun léebatunu dañuy maye nun léebatunu dañuy maye moom nag da doon léeb alxuraan di léeb waa penc mi di léeb nun nag léegi dañuy maye lan la ñu yónni bi lée léebal nen li ko yàlla yónni ti ci njub ak xam-xam bu ko dee seet ci nun ñin ko yónni woon ñetti groupe lañ alhuda wal ilmu nee na bi mu ñëwee ci penc mi ñetti groupe la fi fekk ñu ah, mu ne ni ab taw di fekke ñetti barab mu misaal xeet wi ci euh, ab taw ne na taw bu ñëwee asaaba ardan day taw ci suuf si suuf si nekk ñetti ñetti ñetti barab benn barab boo xam ne naqiya barab boo xam ne naqiya mooy ruuj nañ ko ba noppi dindi nañ ñax ma rijji nañ ko taw ba fekk ko fa taw ci koom nee ba taw ba tawee ci koom e, ndox ma daa saxal gàncax saxal gàncax saxal fuñ mën a sàmm saxalum ñax mu bari nee na benn barab goog mbokk yi bank seen baram te note ko yonent bi moo jàngale ci façon léeb ne na xeetam wi xeetam wi ni ñu dégg koo xam-xam bi mu indi ak njub gi nee na ni taw bi def la def dafa taw am suuf soo xam ne naqiya tayyiba waaw bi taw bi ñëwee tooyal suuf sa saxal fu ñu mën a sàmme soxalum ñax mu baree baree bari loolay benn bi mu ne am barab boo xam ne ajaadib ajaadib mooy dafa bekkoor wala dafa wow dafa wow moom nekkul ak joor comme bi ma njëkk a wax mais xur la mu tiye ndox mi fa nafa allahu biha naas nit ñi jariñu ca ndox ma ndax ma nga taa nekk ab déet ñu naan ca wëgg ca sàmm ca seenu jur muy muy deuxième deuxième euh, terrain bi troisième bi alayhi salaam mooy jàngale nee na troisième bi te mooy ñetteelu barab bi euh, xii aan la xii aan mooy dett ndeer dett ndeer ci wolof mooy ab jànj munta téyam ndox munta saxal gàncax mu ne bu ngeen déggee ñetti barab yooyu sama mission bi neex leen a firil waaw neex leen a firil waaw mu ne loolu mooy ñetti barab yooyu benn bi mooy ki dégg diineem ki dégg diineem yàlla jariñ ko ci dégginu diineem woowu mu jariñ ci ay nit jàng jàngale mu ne waaye am na koo xam ne bi yàlla ko bi ko yàlla yónni yonent bi neen musuma xëyal musuma xëyal nee na ñaar ñee ku ci nekk jéem nga koo xëyal waaye ne yonent bi nee na am na ci biir nit ñi ñoo xam ne mosuñoo xëyal yonent bi ah yàlla nu ci yàlla musal waay <laughs> wa mathalu man lam yarfa bi dalika ra'sa wa lam yaqbal bi ci bi nee na moom xam na ci xeetam ñoo xam ne mosuñu koo xëyal hmm? koo xëyal allahu akbar nee na it àdduna si noonu la kon mi ngi ñuy jàngal principe bu tànn su fekkee ne am na koo xam ne dégg na diineem mën na koo jàngale mën na koo tasaare nee na mooy xur woowu nga xam ne téye na ndox mi ku ñëw naan mu ne waaye bu fekkee am na foo xam ne ab janj la detti ndeer ndox gu ca toq dem nee am na ci xeetam bi muy ñoo xam ne mosuñu koo xëyal moo tax ña xamoon te dégg addis bi bu ñu masaan xëy mënuñu koo xëyal ñu gis ku koy xëyal ñu ànd ak moom loolu moo jur sunu mag ñu am ay taalibe ñuy xëy di leen xëyal ndax ñu ngay xëyal yàlla te ñoom bëgguñoo xëy ñu ngay xëyal yonente ba te bëgguñoo xëy ñoom it te xëyaluñ ko wax naa ko keroog ndeysaan ca sarax sa waaw ci yéen suñu mag ju faatoon ñu ko faatu géey yàlla na ko yàlla yërëm ma ne leen léeg-léeg dañuy daje ci sarax am ñu jël téere bi di jàngal ki faatu alxuraan mu di jaamu yàlla goo xam ne buñ ca noppee ñoom ñoo doon jàng kaamil ba ñu délégué kenn ne ko waxal ci sunu kàddu neel sunu borom nun ni daje woon doon def jaamu yàlla gi ñu tuddee ak jaamu yàlla bi ñu tuddee jàng alxuraan bin ci noppee tuyaaba jaag leer gaag lépp danoo bëgg nga joxal na ko sunu mbokk mii nga xam ne moo génn àdduna di yaayi Maodo waaw daal ni yàlla noo lay ñaan nga àggale yool ba ca moom waaw sunu nijaay alxaaji Lamin Saar ci aslem bu koy jàng tabarkal la ñëpp ay ca jataay ba waaw ndeysaan seet tët tët waaye bu bu sarax si amee ba ñëpp toog di jàngal xonam day am ñoo xam ne ñoom du ñu jàng ma ne leen nag su ngeen bëggee bokk xëy nit ñuy xëyee da ngeen di féete ci beneen boor beneen boor bi mooy làmb leen seen poos génn ci ab sarax saraxeel ko ki dem ñee sarax ko alquran ngeen sarax ko li ci seeni poos ko defee ñépp participer ci sarax loolu lay wax kon ci sunu borom son wa bi mu yónnee yonent bi am ñu koy xëyal am ñu tëdd yi nelaw alayhi salaam nee na ñi tëdd nelaw nañ am xel ci jóg ñoom it def seen loxo ci liggéey bi su boobaa kon mbokk yi ci principe bu tànn bu ñuy tànn dañuy tànn ña yonente ba alayhi salaatu salaam wax ne mën nañoo àggale daawaan bi fa nga xam ne bëgg nañ mu àgg fa waaw ñépp mënuñu ko waaye am nañu ko man ña ko man te yàlla jox leen jumtukaay ba nu mën a waaj la professeur Iba Der waxoon jàngalekat ba li ngay jàngale ni nan laay def réew bi yépp dégg ko looloo war a war ñépp looloo war a war ñépp mu tax kenn ku nekk ca penc mam nekk bu nit ñi xamee ne ma nga ca lam nekk jege ko moom it ànd caag moom ca liggéey ba lu ama am solo la Cheikh Islam Haaj Ibrahima Ñas rahmatullahi alayhi wa radi anhu daan ci wax bayit wu waa penc mi dégg ko léeg-léeg <laughs> bu ñu duggul ci mel noonu du ñu ko dégg fa kullu man xadama nii laqaa nii fi jannatil xulli bila buhtaani ci sunu waxi mag ñoo ñu léeg-léeg nga dégg ci wax joo xam ji boo demul ci ginnaaw ba mu xóot rek doo xam lu muy tekki mooy lan maanaam ku ñu feexe ba ngay xëyal yonent bi yëgal na si aajo fa fii ak fële loolu loolu lay tekki waaw ci sunu dégg nag bokk noonu xam naa eh, al arabi mi ngi may dégg <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér waaw arab yi xam naa mi ngi may dégg yàlla na ko yàlla yokk wér te ñu ko raw bëriwul waaw <laughs> kon fexe ba ngay xëyal yonent bi ki la ko defal teg na la ci yoon woo xam ne da jariñu fii danga nga jariñu fële kon principe bu tànn mooy ba ñëw ci penc mi ñaara fi nekkoon koo xam ne kii day xëy nelaw rek ak koo xam ne kii day xëyal yonent bi yonent bi nee na jàppale leen ci ki may xëyal yéen ñi xëyagoon ngeen fas yéene xëy te fexe ba ki xëyagul xëy su ko defee penc mi jag waaye su fekkee ñiy nelaw ñoo ëpp ñuy xëy dara du dox waaw sallallahu alayhi wa sallam boobu am na solo lool oustaz Cheikh Tànja kon am na koo xam ne kii mën naa jóg la yonent ba daan def di gaaral diine ji aw nit léeg-léeg nit nangu léeg-léeg nit dégg ko yonent bi daana ko def xabaayilul arab ne ca penc ma naan leen yàlla ma yónni di ko defee ci façon boo xam ne bii façon bu baax la teewul am nañu daan taxaw ne yónni ko de yónni ko de kon tànn mbokk yi sémi euh, séminariste yi nga xam ne gaaral nañ seen ñeen seen ñetti euh, seen ñetti atelier yi ba noppi kon li ci def des mooy dañoo war a jublu ci tànn nuy introduire nag li tax tànn am waaw tànn sallallahu alayhi wa cere ba ñuy xeexi badar kera ba ñuy bëgg xeexi badar am na lum fa def lu ñu tuddee al ixtiyaar ixtiyaar mooy tànn ndax li kulli muhimmatin saaba ixtiyaar lépp loo xam ne daa jafee def ci pénc mi dañuy tànn ku ko mën a def waaw tabarkalla moo tax nga dégg naan diw tànneef la mu ñëw ci tànn gam tànnoon Seydina Aliyun karramallahu wajhahu danoo julli timis ba noppi jàkk ji fees del ñu xam ne bu subaa la ñuy xare xaybar alayhi salaatu salaam wax waxam jure jë la utayanna hadihi raaya rajulan yaftahu llahu ala yadayhi yuhibbu allah wa rasula wa yuhibbuhu allah wa rasulu hmm, waaw mu ne bu subaa bu ñu jullee suba ba noppi danaa jox drapeau bi l'islam bi jenn waay jenn waay joo xam ne yàlla dana ubbi xaybar ci ay loxoom waa jooju may jox drapeau bi bu suba ku bëgg yàlla la waaw ku bëgg yonent bi la waa jooju nga xam ne bu subaa naa ko jox drapeau bi ku yàlla bëgg la ku yonent bi bëgg la <laughs> Seydina Omar ca dëggu ga mu ne guddi googu laa masa campagne ndax bëgg bu subaa ñu jox ma lii mun na ndax yi ci yonent bi wax ko Abubakar nee na Omar nee na guddi googu nelawuma ay waay bu ma xëyee yonent bi jox ma ko mbaa du ma xëm mbokk yi dégg leen li yonent bi wax danaa jox bu subaa buñ jullee suba ba noppi danaa jox drapeau bi jenn waay ci yéen cent vingt quatre waa ji ma koy jox ëllëg ci loxoom la yàlla ubbi xaybar waa ji ma ko jox bu ëllëgee ku bëgg yàlla la waa jooju ku bëgg yonent bi la waa jooju ku yàlla bëgg la waaye waa jooju ku yonent bi bëgg la Omar ne ay waay bu ma ko joxee bu subaa nee na guddi googu nelawuma ah loolu kay tubarkalla <laughs> bu subaa laay def dafa am benn bis bàyyi El Hadj Ndiaga Ndiaye fële ca jare Touba Ndiaye rahmatullahi alayhi wa radi anhu sunu góor googa sunu góor googa nga xam ne boo toog ak moom yaa ngi jàng rek tabarkal bàyyi njaga daat ne bàyyi bàyyi Cheikh Guèye kenn ku ne ci kër gi ne ko bu subaa dama laa bëgg yoon ni njare Touba Njaay <laughs> bàyyi Cheikh julli suba rek dem <laughs> bàyyi Cheikh julli suba rekk dem ba tubaa Njaay njare Touba Njaay lu doon say tànk mu ne sëñ bi moo ne woon bu soir dana ma yónni lu mu la yónni mu ne jotuma ko wax ñëpp këpp <laughs> kenn mosu koo gis rek Baye El Hadj njaay Ndiaye moo doon yónni Baye Cheikh ne ko bu subaa dinaa la yónni njëre Touba Ndiaye waaw Baye Cheikh julli suba rek dem xanaa kay <laughs> man ngaa xaar bañ ne la lii lañ la yónni mukk moom daa xëy rek dem Baye Cheikh Ndiaye yal na ko yàlla yokk wér mu nga ca njëre Touba Ndiaye ndeysaan waaw te man alxuraan lool mook bàyyi jibi ndeysaan ñoo fa nekkoon bu bàyyi njaga amee gan ne bàyyi cheikh mun naa mun a ko bindal ma laaye sàngam nangam yoon bàyyi seex du ko gestu du yoru këyit waaw bàyyi cheikh gi ma nga fa ba léegi ndeysaan waaw xaw naa màggat nag bàyyi jibi tam noonu la mel noonu bàyyi jibi géey dëkkoon ca géey ay àndandooy si sëriñ alaaji njaga njaay lay woon ak sëfóoram ba moor faal ndeysaan ceet ceet ceet waaye daal yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu subaa danaa jox drapeau bi jenn waay waa jooju ci loxoom la yàlla yu ubbi xaybar ci la ñu amee victoire waa jooju ku bëgg yàlla la waa jooju ku bëgg yonent bi lay doon waa jooju ku yàlla bëgg lay doon ku yonent bi bëgg lay doon fa lamma asbaha annaasu gadaw ala rasulillah bi nit ñuy xëyee rek wër jàkk ji jàkk ci fees del ku nekk yaa ngay wax say baat ay bu ma ko joxoon ay bu ma ko joxoon wa kulluhum yarju an yu'taaha ku ci nekk ne na ma ko al na ma ko jox yàlla ma ko jox fa qaala ayna aliyun ibnu abi talib ndeysaan ana ali ñu joxe ko ñu jox ñu jox ñu joxale ko joxe ko ngànt maanaam ñu ne yonent bi Aliyu dafa wànnent waaw ana Ali ne dafa wànnent ah xanaa kon bu doon ñun dañ naan nañ seet keneen ñun bu doon ñun dañ naan nañ seet keneen ana Ali yi daa am ngànt acca dem leen ngeen wooyu ko ñu ne ah dafa am ngànt de dafa wànnent waaye dem leen ngeen wooyu ko rek ñu dem wooyi ko ommat ko ndax wànnent wi mayu ko mu mën a dox fa bi bii bi mu ñëwee yonent bi la salaatu salaam tafli ko fii aynayhi wa daa lahu fa bari'a bi mu ñëwee yonent bi moccal ko wànnent wa fi ñu toog tafli ko ca diggante ñaari bët yi Seydina Ali ne jar mel ni ku musta wànnent keroog la gëj a wànnent ba nim sàngoo suuf yonent bi jox ko drapeau ba ñëpp waaru mbokk yi principe bu tànn kon lu am la te ci laa bëgg a dugg ak ndaw ñi waaw ci laa bëgg a dugg ak ndaw ñi réunion nañu euh, séminaire nañu dégg nañ la at wax ma bëgg tànn ay ndaw ci mbooloo mi ñu ngi ci salle bi ba léegi centre bi tudd Abdou Diouf eh, nekk ci jam ñaajo bu leen toxal seen ak déglu tabaarakallaahu ñoo ngi jéglu soxna yi nag di jéglu seen di ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd suñu jotaay bi nga xam ne day am leen di di am mardi di tàmbali 8 heures di jeex 10 heures jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo yàlla yàlla def jàmm ci réew mi réew yi ko